mbooloo mi maa ngi ñaan yàlla ñëpp teewul ndax bi su bi su wax la jëm ji teew dina réer ñu bari ci àddina dina làq ñu bari ci àddina ndax daa war a doon boo déggee tubaab naan double facette boo ko bëggee jàpp Balla Gaye 2 li mu wane ci télé bi wane ko ci làmb gi c'est faux kooku doo war sax kooku du Balla kooku businessman la kooku kooku liggéeykat la kooku kuy jaay marchandise bu jàpp waaye kooku du Balla Gaye Omar mooy borom xol wu rafet bi Omar Sakho mooy borom xol wu yaalu Omar mooy nit diig Omar Sakho mooy nit nga xam ne na mu jàppee milliardaire dana jàppee ki yor daan boucher benn image bi Balla Gaye am ci man waa kër gaa ngi toog li may wax ñu bari ci mbooloo bi mën nañ koo seere bi ma koy fekk géejawaay bëgg ko ba mënuma koo xool te tey laa gën a bëgg ndax sama bëggee ci moom mosuma ko nëbb ku yàlla bi daan ñëw di ko seet ca géejawaay en 2010 boobu mi ngi préparé combat bi diggante ak Modou Lo boo ñëwee ñu ne ma Balla Gaye dégg nelaw ma la dox ci topp naa ko booba benn jaay laa am ak benn xattaan te ba lamb laay toog daj xaar bu yeewu bu yeewu ma ne ko mbër dama laa bëgg sa fan si laa damaa ñëwoon seet si la mu ma kaay dugg ma dugg mu ne buri tàngalal añ bi bàcc li mu baax mi mbokk mi yaay sumbalu loolu lu doy buri ñu dugg ci waañ bi tàngal añ ñu añ mu teg bool bi noonu ba suur mu ne ma sama mbokkum taal bi nga ñoo bokk suñ saaliw dem fi ñëw fii sa kër la nii la ma xamantee man ak moom booba wayu ma booba animewu ma booba kenn xamul ma booba kenn gëmu ma booba kenn nawlaw ma mu yëkkati ma uuf ma dugal ma ci boppam defal ma nag faveur boo xam ne tubaarkàlla man na maa wàcc ci sëñ Bàmba ni du ma ne defalu ko kenn de waaye ñu ko defal des na leen kii kii coow lu ma topp rek jëm ji la barke sëriñ Bàmba Mbàkke mas boo gaa xam na li xew ca kaw la ma daan yéegal te ba tey mi ngi may yéegal nag dama ne damaa bëgg journaliste yi kuy dem yóbbaale ba tey ñu ngi may yéegal ca kaw la may yéegal futti ba ba ma seet teg bi téeli sañ na ma ba ma tooy xet na ma génn ma génn ñibbi boo jëndee coow lu bari moo joxe bakkan yi moo tax dernier bakkan la sikiri dernier bakkan dox naa ko Balla Gaye dee loolu la Gaye waaye kay tàccu loolu loolu ngir jëmm Serigne Bamba Omar Sakho loo dul doyul moo fi